sur cette journée et les attentes des danseurs au niveau du Sénégal. On a discuté vraiment euh, pendant toutes les réunions qu'on puisse avoir un conseil national de la danse. Donc je pense que ça c'est important et c'est primordial que tout le Sénégal se retrouve dans un conseil vraiment pour voir comment peut-on organiser la danse au Sénégal pour les professionnels, les semi-professionnels, les amateurs, mais aussi faire des formations et en même temps aussi aider ces jeunes par rapport au Covid et

on a fait un document qu'on a déposé au ministère de la Culture. Donc depuis trois ans, on attend pour ce fonds. C'est sur ce fonds qu'on peut vraiment faire ces formations, la diffusion, la production. Nous, on avait dit euh, 800 millions pour ce fonds. La fête du travail est l'occasion de revenir sur les doléances et les revendications des travailleurs de plusieurs secteurs d'activité comme celui de la culture et des arts. Quelles sont les doléances, les revendications et les attentes des acteurs Nous avons posé la question à Mustapha Goudjabi, Il est par ailleurs président de l'Association des managers et agents d'artistes du Sénégal. Bon, l'essentiel de nos revendications tournait autour de notre je pense que parce que puisque déjà la loi sur le statut des, euh, de l'artiste et des métiers de la culture a déjà été déjà votée à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme des travailleurs en entière On attend le, juste la promulgation de la loi. Donc ça a été un long combat, mais aujourd'hui, je pense que euh, nous avons vu, nous sommes en train, d'entrevoir le bout du tunnel. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes pas satisfaits à mais xam nga entre entre une loi et son application, il y a tout un fossé. Donc c'est pour cela que euh, aujourd'hui daal nous avons retrouvé le sourire. Justement, durant la Covid, beaucoup d'acteurs ont fait les frais de cette fragilité, n'est-ce pas Bon, nous sommes un des secteurs professionnels les plus vulnérables parce que vous n'êtes pas sans savoir que le passage de la Covid a, primé, a fini de plomber l'économie culturelle. Euh, donc, on a permis aux, autres de travailler, sauf aux, artistes. Donc, euh, alors que nous sommes souvent les plus sollicités, quand il s'agit de venir quelqu'un aide, au centre centre Saki de promouvoir euh, une, une, grande action. Donc euh, nous on, nous nous sommes autosaisis. Lorsque euh, euh, quand il y a eu la menace euh, euh, du coronavirus, ce sont les artistes qui ont beaucoup fait dans la sensibilisation. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes tout le temps les éternels sacrifiés. Donc voilà, et, donc c'est lieu de dire que nous sommes un secteur très vulnérable parce que les gens pensent que c'est un jeu. Donc, euh, c'est ça aussi. Les acteurs gagneraient aussi à se réunir autour euh, d'associations plus fortes pour mieux revendiquer et avoir des résultats par rapport à leurs doléances. Le problème du secteur culturel, c'est nous-mêmes. Il y, a, il, y a, il y a, beaucoup d'associations qui ne parlent pas le même langage, mais si on vraiment, si d'aventure, euh, toutes les associations fusionnaient, on, allait construire une grande force. Mhm. mais aujourd'hui euh, malheureusement c'est la réalité mhm. donc je pense que il faut qu'on cesse de nous regarder euh, avec un autre cliché mhm. parce que j'entends soit dire ay caaxaan la mais du la musique mhm. aujourd'hui la musique il y, en a c'est que il y a des gens qui sont nourris par la musique donc il y a on ne peut plus parler en de de nous sommes des travailleurs à part entière et il y a, a, y, beaucoup de métiers de, la, de musique, il y, a des, métiers de la musique. Donc euh, je pense que, tout cas là, mhm. nous sommes à moitié euh, satisfaits parce que enfin euh, euh, l'État a mis les conditions, nous a mis dans les conditions de réfléchir sur le statut de l'artiste. Mhm. Nous avons fini d'effectuer le boulot. Mhm. Et aujourd'hui, euh, après la loi est passée par un circuit. par, tout, tous les ministères concernés, techniques. Et aujourd'hui, bon, ça, pour atterrir dans le bureau du secrétaire général de la présidence, qui, in fine, l'a envoyé en Assemblée nationale et elle a été votée la loi. Mmh. Maintenant, nous attendons le décret de promulgation et pour un début d'application. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbat yi dañu koy dooree ak màggal bi ñu doon màggal bés bu ñu jagleel lépp dem ci wàllum pecc ci àdduna wërngal kàpp yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril xumute yi nag ñu ngi ko doon amalee fële ca complexe Léopold Sédar Senghor ba nekk Pikine te teewaayu mbooloo mu takku day acteur directeur de cabinet ministre de la culture ki nga xam ne nag moo di Malang Ndiaye jiite fédération bi nga xam ne moo ëmb bale yi nekk ci réew Sénégal bokkit ci kuréel gi nekk àdduna warngal kap di ligganti lépp jëm ci ci bés bi ak it ci li nga xam ne fecckat yi nekk ci réew Sénégal ñu koy xaar benn conseil national de la danse boobu ba léegi ñu ngi koy xalaat defe naa ci ñaari at a ngi nii mu ci toll ñu ngi ciy xalaat naka la ñuy def ba am benn conseil national de la danse lu tax kuréel boobu kuréel boobu daf ñuy dimbali a say loo xam ne ñu ngi ko contrôler mais kuréel boobu tamit daf a yoo xamante ni ñi nga xamante ni ay professionnel la ñi nga xamante ni ay semi professionnel ñi nga xamante ni ay amateur la ñu ñoon ñëpp ñu mun a nekk si biir kuréel bi ñu ànd saytu ñun ñëpp li nga xamante ni moom mooy suñu aada ak suñu cosaan ak suñu pecc fii ci Sénégal beneen bi nag moom mooy bi ëpp solo ñetti at si ginnaaw tase woon nañ tubaab jalaaw nekkoon ci benn lël liggéey benn kayit boo xamante ni ñu ngi koy wax un document pour le fonds national de la danse boobu ñetti at a déposé nañ ko ministère la culture fonds boobu amee day dimbali képp koo xamante ni tey jii yaa ngi ci ci fecc ci bi ñu nekk foo munti nekk ci Sénégal boo amee sa projet mun nga ko déposer foofu ñu accompagner la nga mun a def li nga xamante ni moom mooy formation nga xam ne ñëpp dañ ko soxla tey jii ci wàllu daam rawatina fu ñu toll nii nag am na leneen loo xamante ni dafa dugg ci adduna bi moom mooy digitalisation bi nga xamante ni dafa commencé ak numérique bi fond boobu ñun buñ ko xaymaa ba pare laajte ko donc dafay dafay tourner autour de huit cent millions. benn fanweeri mai mooy bés bi ñu jagleel liggéeykat yi niki noonu xam ngeen liggéeykat yi bokk na ci ñu yëngu ci wàllum mbatitu réew mi secteur yu bëri te wuute ci mbirum agriculture fii ci réew Sénégal ñoom it bokk nañ ci liggéeykat yi te it am nañu ay mébét ak it seen i ñaxtu la ñu war koo gaaral lan mooy mébét yooyu ak ñaxtu yooyu le laaj nañu laaj boobu le Moustapha Goudiaby doon it président association des managers et agents d'artistes ñu nekk ci réew senegal waa ñun lu ñu xeex mooy amuñu statut souvent même suñu bëggee voyager. dañuy wax ni am leen statut ñun dañu yàgg a considéré comme étant des commerçants mais heureusement loolu daf ñu doon gàllankoor ci waree tukki ci waree def yenn yi et puis euh, amuñu protection sociale amuñu dara dafay neex rek sa employeur mu xëy dàq la donc euh, bu ñu ko bu ñu bu ñu actuellement état bi euh, dafa dafa dajale les parties prenantes ñi autour autour de la table ñu waxtaan. bind ci statut bi en avec un technicien un professeur d'université bu ñuy génnee ci xalaat ba pare kooku bind ko euh, euh, euh, jébbal suñu travaux yi les ministères techniques nga xam ne. ministère du travail ministère de l'économie ministère technique yëpp bu ñu bu ñu defee seen seen input ñu yóbbu ko secrétariat général de la présidence après kooku yëpp ko assemblée voté nañ ko léegi dañu considéré comme ay travailleurs donc lépp lu war travail war donc léegi dañuy xaar président génne décret de euh, euh, promulgation bi pour ñu mën ko appliquer. Mm-hmm. donc loolu lool foofu lañ toll. Mm-hmm. mun naa wax ne daal aujourd'hui on est à satisfait. Mm-hmm. parce que euh, on est on est considéré comme des travailleurs. alors secteur boo xam ne aussi dafa xaw a fragile. parce que ñu bëri dañu jàpp ne donc li ñu koy def amul solo moo tax sax ci wàllu Covid bi euh, mu am ay problème yu bëri amoon artistes yi seen liggéey yàq woon. waaw secteur la boo xam ne. déjà sénégalais yi dans leur imagination pour ñoom ay fo la moo tax lu lu xew rek ñëppay liggéey sauf ñun jaaykatu yàpp bi dina liggéey keneen dina liggéey mais ñun dañuy liggéey parce que ñun suñu liggéey dafay laaj mbooloo te dafay def bruit donc pour ñoom euh, su amee état euh, état d'exception ñun war ñu liggéey donc déjà loolu da ah, ah ah alors lu xew su amee. nit bu ñu dimbale su amee sensibilisation musiciens yi la ñuy utiliser. Mhm. ma ne quelque part il ñu xoolaat façon bu ñu xoolee bi ñu considéré musique bi ak acteur culturel yi. Mhm. du ñu ay caaxaan. Mhm. donc ku mel ni Youssou Ndour euh, yàgg na yàgg na défendre les couleurs nationales. Euh, soo jëlee ñaari pays yu ndaw yoo xam ne euh, Jamaïque ak Cuba lu tax ñu xam ne du seen économie. musique moo tax ñu xam Cuba ñi xam Jamaïque. donc musique dafa am solo ci réew parce que elle adoucit les mœurs dafay gérer situation donc euh, musique moom lu lu am solo la su musique amuloon euh, am na ci diine am na ci lépp euh, ay xasaay di gaa yi ñuy wéy ngay daanu donc loolu moo tax maa ne musique lu am solo la dañu bàyyi dañu xoolee na la alors beneen laaj bi dem ci wàllu justement secteur bi association yu bëri yi ku nekk di xëcc sa boor est-ce que aussi nekk loo xam ne aussi problème la jël gàllankoor la ci wàllu donc jot seen droit ni mu waree waaw xam naa dafa bari association parce que nag ñun suñu biir dañu déggoowul moom man dama créé ñun dañu créé association boo xam ne euh, organisation professionnelle boo xam ne concerne les managers et agents d'artistes bu ñu réfléchir si suñu mbir parce que suñu mbir kenn mënu ko valoriser ku dul ñun mm-hmm. organiser suñu secteur def ay formation donc euh, je profite sax dèjà ci interview boo xam ne suba am naa promotion de manager bi génn à 15 heures o Grand Théâtre mm-hmm. euh, invité invité naa leen waaw day wàññi doole bi day wàññi doole bi day wàññi doole bi parce que ku nekk day ku nekk da ngay wax ku nekk da ngay am si préjugé ku nekk da ngay wax du ma taw wax fii du ma taw wax kële donc loolu kiiwul euh, euh, euh, baaxul si secteur ñun dañuy judd Sénégal ñu fekk yaay dox mbooloo mooy doole te loolu gëm naa ko mbooloo mooy doole fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi